bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa ma callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahumma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5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 ndax buur yàlla tabaraka wa taala moo ñu ne ci alquran wa iz taazana rabbukum wala in shakartum la azidannakum wa iz taazana rabbukum la in shakartum la azidannakum buur yàlla tabaraka wa taala ci téere bi bu ngeen ma dollee di sant ma dolli leen dottil sama xéwali bu ngeen nekk fi di sant xéwali ma di ko yokk la in shakartum la azidannakum bu ngeen reconnaître xéewal yi yama ba tax na yow mi yàlla jox alal yàlla ne nang ci génnee azak boo ko santee ci xéewal bam la jox nga sante ko ci ci anamu nangoo génne azakay alal bam la jox yàlla ne ma yokk sa alal ma barkel ko ma def la nga doon ki koy bénéficier wu te lépp loo ci def benn ma fulandil la ko ndax danga nangoo tënk sa bopp ci ndigal dangaa nangoo tënk sa bopp ci topp ndigal waaye nangu nga sore ci lépp loo xamante ni xeetu tere yi la noonu la ñuy déggee la in shakartum la azidannakum ba tax na noonu la sante yàlla buur bi tabaraka wa ci anam bi nga xamante ne weneen anam la ndax moo ñu baaxee ñu fekkee keroog ba noddkat bi di noddu ci jàkk ji naan hayya ala salaa kaay leen remplir condition bi nga xamante ne mooy audience bu njëkk bi ngeen di am ak seen boroom kaay leen ngeen ñëw remplir la nga xamante ne mooy audience bu njëkk bi ngeen di ubbi seen bés bi ñu di leen fàttali ne rek bés ni ki tey mooy dibéer dibir bi ñu nekk nii nag tey jii moo nekk euh, bés bi nga xamante ne mooy euh, bésu dibir bi ñu nekk ni moo nekk euh, bés bi nga xamante ne ca la ñu nekk ni mooy ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru tamxarit waaw ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru tamxarit mu tombe gàddaay yenentu bi sallallahu alayhi wa atum junni ñeent téeméer ñeent fukk ak juróom benneelu at bi mooy mille quatre cent quarante sixième année bi waaw su ko defee ñu di leen fàttali ne rek des na suñu diggante ku weeri weer bu mag bi deux cent dix jours deux cent dix jours moo des suñu diggante ku weeri koor ñuy ñaan yàlla buur bi tabaaraka wa taala weer bu mag boobu buy ñëw yàlla nañu fi fekk buy dem yàlla ñu fi bay te lépp lañ fa jaamu yàlla yàlla ñu ko buur yàlla nangul amin ya rabbal alamin mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot xanaa di leen fàttali waxu borom xam-xam su mag di xasanul basri rahimahullah ma nga xamante ne moo ñu doon baaxee ni ñu ibnu aadama innama anta ayyamun kullama zahaba yowmuk zahaba baaduk nee na yow doomu aadama bi de na nga xam ne sa bis yàlla fi tax a nekk sa bés yàlla fi tax a nekk bés ya tax nga di ko dund fii ah du lenn lu dul bis yay ñëw di jaar di jàll ba tax na xasanul basir rahimahullah nee na mu ngi lay fàttali ne bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne bés boobu dañ na ci sa dund kon yow mi nga xamante ne yàlla am na lam la baaxee ci alal ngelawaay ñu ngi ci jamonoy génne azak boroom alal yi na comp ci la leen yàlla dénk ndax loolu la leen wax wa mimma razaqnaahum yunfiquun astuut la ma leen dénk na ngeen si comp astuut ngeen daal di ko laabalee seen bakken ngeen def ko amalu saalix bi nga xamante ne wali anfusihim aw fa li anfusihim yamhaduun laltaay ba ngay jiitalal sa bopp mu doon sa laltaayu ba ngay fekk keroog bés bu njëkk ba ngay tër sa tëraayu bàmmeel alal bi boo ko génnee def ko fi la yow yay ki laltaayal sa bopp jëf ju baax ji nga xamante ne buñ la ko fay résultat bi danga naan o oh, aka neexoon ma del sama dund yëpp di ko jëf jëf ju baax di ko liggéey jëf ju baax bu la nit ñi mënuñu laa épargnel jëf ju baax yow na nga sa bopp te jamono yi épargnel sa bopp jëf ju baax nag ca la ñu nekk nii waaw moo tax yàlla ne man amila saalihan waaw képp ku jëf-jëf ju baax fali anfusihim yamhaduun boppam la ko jiitalal mu doon laltaay ba mu laltaayal boppam keroog buñ ko wàccee ci biir bàmmel mu di ko bénéficié wu ba keroog bés penc di taxaw ba tax na xéewal boobu yàlla dogal mu yenkeewal ko képp ku yàlla compal astuut ci xéewal yam la xéewalal ci koom-koom yàlla nee na na nga génnee azakay alal jooju yonent bi ne ndegem danga bokk ci daairatul islaam ponku islaam ba nga xamante ne moo ŋànk suñu diine bi bu dee diine bi mbaar la ponk yu ko téye pile yu ko téye piye ya tax mbaar bi yëngawtuwul juróom lañu juróom yooyu ñetteelu ponk bi mooy wa ita izaka génnee azakay alal bala yàlla dënk ndax moomoo ko de yàllaa ka moom kon dala kaa dënk ngir nga liggéey si nga liggéeyal si sa bopp waaye nga liggéeyal si diini bi suñu ustaas ndeysaan dañ daan wax ne nee na képp ku yàlla tibal kudu cunwaar dala naan nga añ waaw ah, Oustaz Alioune Sall xafisahullahu waraahu nee na képp ku yàlla tibal cunwaar ku du luus nee dala naan nanga añ waaye képp ku mu tegal booli dala naan na nga séddale te seddale jooju nag génnee azaka ca la bokk waaw kañ képp ku yàlla tibal ku du cunwaar nee yàlla dala naan na añ waaw ah. waaye bu la yàlla tegalee booli dala naan na ut ay aset ut ay kuddu séddale waaw ah, yàlla dalaa séddale loo jamono bu mu la tegalee booli kon nga déggee ci ne bu la yàlla joxe lu ne gàññ nag dala séddale loo séddale jooju noonu nag sarax ci la waaw ah, ak li mel waaye nag lay njombaxtalu jëf yi ca la nga war a séddale te mu doon séddale ba yàlla santaane loolu mooy ita izaka waaw génne a zakka zakka joo xamante ne day laabal sa bakken jëlee ko ci salte tilim mbalit joo xamante ne mooy mbalitu soxor jëlee ko ci salte boo xamante ne muy saltey siis jëlee ko ci eh, tilim tilim bi nga xamante ne mooy tilim tilim bëgg foqale bëgg ba ëpp foqale bi kenn mënu koo natt ngir loolu yëpp dañ ci sa biir xol dangay laabal sa xol tëbb ci alal jooju la nga xamante ne loolu mooy la yàlla moom nga jox ko njabootam ña nga xamante ni dala naan nanga ko jox ñooñee su ko defee nag sa diine mu daldi di wér ñu rekoneetar la ne danga bokk ci membre jullit ñi kenn kon ita is dafa war ci képp koo xamante ne yàlla baaxe na la nga yore la tax nga war a mën a génnee azak bu ñu azak nag mun nañ kaa génne ci alal ci xànjar ci xaalis ci or ci mbey ci jur yooyu yëpp ci ko bugg xam diine détaayel na la ko ak noo koy génne yàlla ñu yàlla may dégg ak topp mbokk yi yàlla na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot ñoo leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci réew Rewmi FM 97.5 mbokk yi démb ñu ngi taxawoon ci suñu aluwa bañ doon wéttalantik yéen ci xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu ci ñetti nit ñi nga xamante ne dañoo nekkoon di dund ci askanu banu israil yenentu bi sallallahu alayhi wa ma ko yàlla xamal mu daal di ko baaxee saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain bokk na ci lañu war a tiiri ci maana xadis bi ba léegi ndekkete jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon toog ak saxaaba mu di leen jàngal seen diine actualité la xew ba nekk en jour waaye da doon waxtaan ak saxaaba yi ridwanullahi alayhim xissa boo xamante ne wala xissa yoo xamante ne jaaroon nañ fi te ñoom gisuñu leen xamuñu leen dégguñu leen ci fenn te kenn nekku fi ku leen koy rencontrel ku dut seen tànneef ba yàlla tànn ci jaamaam yi mu yónni ko di ar rasulul mustapha sallallahu sallam ndegem moo doon toog ak sahaaba yi ridwanullah alayhim ajmain mu di leen rencontrel actualité ba ne boy ci pénc bi en même temps mu di leen rencontrel di leen waxtaanal histoire xeet ya fi jiitu woon ngir xeet bi war see war a mën a jëriñu ba tey ñu ñu jot si xadis ba nga xamante ne moom lañu ñu abi hurayrata radiallahu anhu génneel ñu nit ñu di ko waxtaanee fii ci réew mi fm 97.5 ci waxtaanu fajar yal nañu yàlla may dégg ak topp amin ya rabbal alamin mbokk yi ñu ngi yemoon ak yéen fa malaaka bi ñëwee di waxtaan ak ka nga xamante ne mooy kii bopp bi amul karaw boroom bopp bu leel bi gannaaw malaaka bi bu mu dikkee ci moom mu di ko waxtaanal mu ne ko ah yow de man dama di koo xamante ne daal dama doon tukki sama yoon bi am gàllankoor léegi nag ma bëggoon ka ma xettali ka ma jàppale ma daldi woyandi tukki ba ma nekkoon wa qaala lahu alxuququ kathir mu ne ko a xamal ne de la nekk moom responsabili yama gàll responsabilité yama gàll yi bari nañu lool sama loos ba tax na daal la fi nekk mënuma fi jël dara naan dama koy dimbali nit waaw alxuququ kathir mu ne ko problème yi bari nañu responsable yama gàll dañoo bari tellement mënuma fi jël fifteen nen dama koy jox nit ngir mu waaw ngir mu war koo mën a jëfandikoo problème yi dañoo bari waaw maa ngi koy jégalu waaw daal mënumaa joxe dara fa qaala lahu ka anni aarifuka malaaka bi ne ko mel de mel na ni yow mii sax xam naa la de waaye ne ko kan man ma ne ko yow mii ah ne ko yow ne ko yow xamee naa la de waa ji ne ko waaye góor gi est-ce que jaawlewuloo ma mbokk yi démb ak nuroog tey démb moo nurook tey jii waaw ku la bëggut a xam dalaa dalay dalay dalay bañ a xàmmee munoo ci dara waxal lu la neex waxal ba ŋaa du la neex xammee naa la wala xam naa la parce que xam la moomaa jooju njëriñu ko dara ñàkk laa xam mooy la njëriñ est loolu baax na si moom tontu bi voilà kenn ku nekk naka xool malaaka bi ne ko mel ni yow xàmmee dara de waa ji ne ko de du man de malaaka bi ne ko d'accord alam takun abrasa qad yaqziruka annaasu bi faqrin fa aataaka allahu fa qaal innama waristu hada almaal kaabiran an kaabiran malaka bi ne ko xanaa yow yaa fi nekkutoon borom leel boo xamante ne sa bopp bi nu mu meloon ñépp la siixlu woon ñii di la daw wañiy dar la melokaan bi kenn mënu koo xool xanaa yaa fi nekkutoon anam bi ni mel mu ne ko non danga maa jaawale du man de mu ko xanaa du yaa fi nekkutoon faqir joo xamante ne amuloo woon dara yalla baaxee la nga am alal bu ne boy yalla baaxee la nga am alel bu ne gàññ tey jii mu ne ko non uh kooku du man mu ne ko man alal bi ma yore nii boo xamul nu ma ko amee lii dama kaa donn ci samay maam ñooñu donn ko samay maam ñooñu donn ko seeni maam sama maamaati maam laa donn alal bi bi ne ko ah mu ko waaw waaw fa qaal malaka bi ne in kunta kaziban bu dee la nga wax ni ay kàcc la dara du ci dégg ah ko fa allahu ila ma kunta yenn la delloo la nga nekkee woon bu dee li nga wax nii dara du ci dëgg yal na yàlla def sa melokaan ba nga nekkee woon ñàkk karaw ba nga nekkee woon leel ba nga nekkee woon la tax nit ñi siixlu lañu la daw ñu di la daw noonu nga nekkee woon yal na la yàlla delloo anam woowe xaal abi hurayrata nee na wa ata neena na bi neena wa ata al aqra waaw mu ñëw ci borom ki nga xamante ne mooy yaram bu ñaaw bi waaw mo ñëw ci moom fii suuratihi ci melokaanam ba mu nekkee woon fa qaal mu ne ko misla ma qaala li la mel ni la waxoon ñaar ñooñu wa radda alayhi mislu ma radda ala haza fa qaal mu delloo ko kooku tamit daldi ko wax lu mel ni bu njëkk bi lam ko delloo woon ku njëkk ki lum ko tontu loolu la ko ñaareel bi tontu malaaka bi ne ko in kunta kaasiban bu fekkente ne li nga wax ni dara du ci dëgg fa siiraka allahu ma kunta yan na la delloo la nga nekkee woon qaal abi hurayrata nee na yenentu bi daldi wax ne wa atal ama mu ñëw ci silmax bi fii suuratihi ci melokaanam ba woon jamono bi mu nekkoon silmax wa hay atin ci melokaanam bi daldi gëmb daldi mel comme melokaanu silmax bi ni mu nekkee woon sol yére ya mu daan sol muy melo muy meloo melokaan ba silmax bi di meloo woon jamono bi mu nekkee woon faqir fa qaal malaaka bi ne rajulun ab góor a ngi nii day sàkku ndimbal day yelwaan miskiin koo xamante ne ñàkk na de amul dara nu sabil daa nekk ci yoonu tukki yoon bi daal di am tolof-tolof waa ngi sàkku ndimbal in qata abi xibaal ah soxla yi wër nañ ma amatuma dara possibilité ah amatuma jokkukaay ci lenn fii safari sama yoon bi ma nekk ni du tukki fala balaaga lii l amul kenn ku ma war a wallu kudul yàlla mi ma yaakaar gannaaw si nag ah xanaa yow mi ma yaakaar ci sabab bi waaw ah, mu wax wax mu daldi wax xeetu yelwaan yamu yëkkati kom slogan jëmale ko ci silmaq bi silmaq wi daldi ko wax lañu bëgg a teg nii maanaam malaaka bi moo soppeeku kom silmax bi nu mu melokaanoo woon bu mu ñëwee mu daldi di ko wax slogan bi mel waa ji daal day yelwaan daa nekk ci yoonu tukki yoon wi am na tolof-tolof amatuma lu may lekk la ma amoon yëpp jeex na léegi nag ma am jafe-jafe sama tukki maa ngi nii tey daal gannaaw yàlla yow laa yaakaar ki ma war a dimbali de loo man defal ah silmaxa bi daal di xelaat ne pourtant man de melokaan bi ma jàkkaarloo nii nii laa mosoon na nekk de gars di ma daw jëmm ji ma jàkkaaroo nii mus naa mel ni gars yi di ma siixlu kenn du ma womat ku ma woo ma faale ki ma soxla du ma wuyu gars doyadal ma ci pénc bi ah, kon kii tamit de bu fekkente ne jamono dox na ba mu mel melokaan bi ma meloon mu ñëw muy sàkku ndimbal di tàllal loxo di sàkku wollu ah la ma war mooy ma taxawee ko kon te maa taxawu kii silmaxa bi daldi di jóg ne ko asaluka allahu billadi radda alayka basaruk waaw mu ne ko maa ngi ñaan yàlla yàlla mi nga xamante ne moo la delloo sa bët ngir nga mën a gis mu daldi la baaxe ay jur yi nga xamante ni ay jur yu bari lañu lu mel ni jur bu gàtt bëy ak xar lu mel ni gittum nag ba nga yore lu mel ni gittum gëléem ba nga yore ah maa lay ñaanal yàlla buur bi la jox xéewal yi ni mel te mu delloo la say bët nga di si gis yow ku reconnaître xéewalu yàlla nga yow ku yàlla baaxee la yow ku yàlla sàmm la yow yaay ki mucc yaay ki rafet mujjanteel waaw malaaka bi daal di ko wax lii qaal kat kunta ama mu ne ko dangaa nekkoon ku silmaq daawuloo gis mu ne ko waaw keñ man la de mu ne ko faraddallahu ilayya basari mu ne ko yàlla daal ma delloo samay bët man maa fi nekkoon silmaxa maa fi nekkoon gumba bu dul gis yàlla delloo ma samay bët mu ne kon naa la yóbbu si gétt gi jëlal la neex waaw silmaxa ba woon ba yàlla jox koom-koom tey mu doon patron mu doon ku riche ci jamonoom waaw malaaka bi soppeeku sëlmaxa ba mu nekkoon tey mu gis ne sama démb moo ñëw taxaw sama kanam nii anam ba ma nekkoon démb kooku moo ñëw taxaw nii sama kanam kon kii lépp lu ma ko defal médité na ko ndax li ma meloon démb ki ma defal la may waaj a def waaji nii dina ma neex kon kii ku ko taxawee a ah, dinga am lu bari ci maana ci waxin mu daldi ko ne fa xus ma chita jëlal ci gàtt gi la neex jël ci la la neex xar yaa ngi nii béy yaa ngi nii jëlal li neex jël ci la la neex nag yaa ngi nii jël ci la la neex géttu gëlëm baa ngi nii yay bañ loo si jël yaa ko moom mu ne ko fa xus macheet da nga jël li nga moom da jël li la neex jëlal yaa ko moom wa daa macheet lang fa bàyyi tamit yow lay soob loo jël yaa ko moom loo fa bàyyi tamit ci sa coobare nga ko bàyyi malaaka bi ne ko fa wallahi maa ngi gëñ ci yàlla laa ajhaduka li yawma shay'an duma la teree dara duma la teree dara axastahu lillah loo fi jël yàlla moo tax nga jël ko fa qaal malaaka bi ne ko amsik maalak na nga sa alal amsik maalak jëlal sa alal nga téye ko fa innama li fi nekk kañ ibtalaytum yàlla moo leen doon teg natt boo xamante ne faqat radiya anka xamal ne yàlla gërëm na la ci sa geste ba nga jëflanteeg man wa saxita alal saaxibak yàlla mere na sanjub yàlla wàcc na ci sa ñaari mbokk yooyu ngaana gi yàlla mero na ko boroom bopp bu ñaaw bi boroom bopp bu leel bi yàlla mere na ko meru mi yàlla dina leen dal ñoom ñaar ngaana bi yàlla dina ko mere te merum dina ko laal boroom bopp bu leel bi yàlla mere na ko te merum yàlla dina ko laal waaw ba waa ji doon wax lii malaaka bi ne ko xuus maa siita na nga jil la neex wa daa siita nga waccu fi li neex la nga jël yaa moom loo fi bàyyi tamit yow la neex mu tegal ko ci ne fa wallaahi maa ngi gëñ fa yàlla ne laa ajhaduka li yowma shay'an axastahu lillah duma la teree dara dara dara ba dara booloo jeex la fi war a jël lu dul yàlla donga tax nga di ko jël waaw jëlal li la neex ndax li ma nekkee woon xam naa ko melokaan bi ma gis nii nii laa nekkee woon malaaka bi di ko ne faqaal yonent bi ne malaaka bi daldi wax silmaxa ba woon am sik maalak sa alal bi yaa moom jëlal yaa ko féetew fa innama talaytum li fi nekk mooy yàlla da leen doon ese teg leen nattu xool ba xam faqad radiya ank xamal ne ca dëgg-dëgg-dëgg yàlla gërëm na la yow ak geste bi nga comporté woo ak man te nga tibbee ko sa xol delloo nga yàlla njukkal te sant nga ko ci xéewal yam la defal wa soxita alal saahibak te yàlla mere na sa ñaari àndandoor yooyu boroom bopp bu leel bi yàlla mere na ko sanju bi yàlla dina ko laal waaye ngaana bi tamit lamu mu comporté ak man bañ a la ko yàlla dig ne nanka génnee ci alal mu daldi di créer sos bu mel ni ne la mu nekkee daka donn ci maamam ñooñu donn ko seeni maam hadis bi Bukhari ak Muslim dañ ci déppoo mbokk yi ba léegi xulaasa hadis bi njeexantalu hadis beeg taawilaat ya nekk ak la mel ni ay taaliqaat lañ ci war a mën a yokk mooy yow mi yàlla jox xéewal nanga nga reconnaître xéewalu yàlla ca lam la jox ak nim la ko joxe ndax yow kese nekkoo fi di jaamam yow kese nekkoo fi lamu tànn bem la jox lam la jox kon ñam ka xañ nang leen sëdd nang leen sóor nang leen bàyyi xel ci zaahir ak ci baatin yàlla xam na la nga jëflanteeg njabootaam yamu teg ñàkk nattu yàlla xam na na nga jëflanteel ki soxla ba mu la ñëw diis ndeysaan suñu maam di sëriñ Abdul Aziz Si Dabaax rahimahullahu rahmatan waasia daanoon na wax képp ko ñëw sàkku ci moom soxla bu yàlla dogalee mu doon sabab ba soxla soosu faju ñu ne boo ko doon ñaanal dala doon wax ne dagma ma yénni yiw ñu ne ba léegi bokk na suñu maam yu baax ñi fi nekkoon di sëriñ Fallu Mbakke rahimahullahu rahmatan wa asia moom it daanoon na taxawee nit ñi ca soxla ba ñuy ñëw di ko ko diis boo ko wara ñaanal moom muy dékk loxoom ne la ñaanal ma ñu ne secret ba fa nekk mooy day xam ne xol bi fiix na te yow lépp la ko war a ñaanal loolu da koy tibbee ci sa biir xol gis nga suñu mag yu njëkk ñi ñoom fañ doon gisee ak fañ doon jëflante ak nit ñi ak nañ doon jëflante ak nit ñi allahu akbar yal leen ñu ko yàlla fayal yàlla leen ñu yàlla fayal yal nañ leen ñu yàlla ñii nii lañ doon jëflante képp koo xamante ne am nga soxla ba sa xel dem ci ñoom yàlla wommat la nga jàkkaarloog ñoom jàkkaarloog seen jëmm yu selle yooyu nga wax leen la nga xamante ne moo la tax a yëkkati su ko defee bu ñu jëflanteeg yow ba noppi nii lañuy ñuy yow waaw ñii dañuy tàllal seen loxo ne la ñaanal ñu ndax xam nañ ne jamono jooju lépp loo wax ci sa làmmiñ danga koy tibbee sa biir xol waaw kii moom lu mu lay wax mooy dala naan yàlla moo la wommat andi la ci man yaa ma yéene yiw dag ma yéene yiw waaw xawatal xeetu slogan yooyu waa xamante ni suñu maam yu njëkk yi suñu kilifa diine yu njëkk yi lii lañ doon incarné ak jëmm doomu aadama yi fa jazakumullahu xayran yàlla nañ ko yàlla fayal yal na leen yàlla fay seen jëf ju yiw jooju mbokk yi la nekk ci xadis bi yan nañu ko yàlla déggloo jikko yu baax ya suñu maam yi doon dund ñu xam ci as ñu wàccee leen ko ci waxtaanu fajar fii ci réew mi FM 97.5 yal ñu ko yàlla boole déggloo ñu di ko mun a jëf ci suñu dund ñu dund ko ñu inculque ko suñu dund xadis bi lépp lu si jub ñu santee ko yàlla lu siy dëng-dëng yal nañu ko yàlla jéggal li ñu si namoon mooy ñu wax ko comme ni mu nekkee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 wa nafaani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayaati wa dikri al hakim aqulu ma tasmaun assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu